famille yu marraine bi di leen euh, rendre hommage ci qualité yi nga xam ni moom lañ fi feeñal ci seen yi dinañ ci dellu si incha allah bu ñuy conclure di nuyu tamit ki nga xam ni moo ñu gunge wettali ñu di professeur Daouda Diop di euh, professeur d'histoire toog ci sama ginnaaw euh, di nuyu Serigne Ismaïla Dem di nuyu bàjjam aran sekk nag di ko yemale foofu ñu yóbbaale ñi ci des euh, thème bi ñu war a waxtaane nag euh, di le madiankisme de origines à nos jours maanaam madiankisme ci cosaanam ba ci suñu jonn tey di thème boo xam ni nag yaatu na yaatuwaay boo xam ni euh, ku gëstu tuuti ci histoire u di nga xam ni kenn mënu ko traité ci conférence liñ ko mën a traité kay mooy xanaa cours histoire annuelle cours boo xam ni atum lëmm da ngay jàngale lan mooy maadiyankisme muy ay dizaine deur loolu moo mën a tax nga wër ko moo tax conférence boo xam ni bu baree ba bari quarante cinq minutes une lay doon kenn mënu cee waxtaane ba mu mat le maadiyankisme des origines à nos xanaa tënk lu bari rek objectif bi nag mooy euh, dafa am kilifa goo xam ni istorien la Ernest Charles dafa gëstu ci madiankisme bind ci benn article américain la bi muy tëj ci waxtaanam bi muy conclure daf ni daal histoire bii nga xam ni tuuti laa ci gëstu waa réew mi war nañ koo bàyyi xel ndax riche boo xam ni jéggi na dayoo Eny Charles boobu nag man bokk na ci ñi nga xam ni dañ ma gën a puus may gëstu histoire u Maadiyu ginnaaw boo xamee ni nag euh, man ci laa bokk en tant que taalibe ba waxtaan wi nag euh, niñ ko bëgg a organiser mooy vallée du senegal bu la neexee nga ni Fuuta dafa doon espace boo xam ni diiney islaam dafa yàgg télescopage bari fa ci influence yu bari maanaam gisi ni diine yu bari daje fa mu doon lieu d'intégration maanaam foo xam ni ay gisiin yu wuute dañ fay daje waaye tamit doon espace de compétition ndax gisiin yu bari fu ñu daje dina am intégration waaye dina am compétition entre école entre mouvement obédience ak tarixa tijaaniya bokk ci tarixa yi mujj a feeñ ci barab boobu ñuy wax vallée du Sénégal wala Fuuta moom it bi mu ñëwee ba développé wu mu def ni ay moroomam maanaam am ay version yu bari maadiyankisme di benn ci version yooyu juddu ci dix-neuvième siècle kon kay soo bëggee waxtaan ci maadiyankisme am na laaj yoo xam ni faw nga yëkkati leen lan mooy nature madiankisme lan moo koy màndargaal ñan ñooy kilifa yi nga xam ni ñoo ko jëmal incarné ko lan mooy jaar-jaar yi nga xam ni moo tax mu tasaaroo ci réew mi lan mooy madiankisme tey suñu tontoo ci laaj yooyu yépp xam naa duñu wër thème bi waaye dinañu xam aslëf ci maadiyankisme ci cosaanam ba suñu jonni tey pour tontu ci laaj yooyu nag plan bi mooy tomb bi ñuy jëkk a waxtaane mooy les références théoriques du maadiyankisme maanaam dëgg-dëgg cosaanu maadiyankisme boo ko delloo ci xam-xam fooy akke ji ñaareelu tomb bi di cheikhu ahmadu ak taxawaayam ci ni maadiyankisme tasaaroo ci réew mi ak ci àddina bi ñetteelu point bi di deuxième campagne du Kajoor maanaam cheikhu ahmadu bi mu duggee Kajoor ndax loolu daf di étape boo xam ni dafa am importance ñeenteelu tomb bi di Samba Sadio ndax li mu représenté daanaka xeex bi taxul mais symbole bi mu doon juróom juróomeelu point bi nga xam ne ci la ñuy jeexale nag mooy maadiyankisme ginnaaw sàmba Sadio fi mu jaar ba suñu jonni tey loolu mooy tomb yi nga xam ni bëgg nañ ko waxtaane kon bi ci jëkk di les références théoriques et les modèles inspirateurs du madiankisme maanaam euh, bu ñu delloo ci xam-xam fan la madiankisme di dellu fan la madiankisme di samp ay reenam amoon nañu yéene nag yi ñuy waxtaane yëpp lu ci bari ñu koy wone ci ay image ak mais ñu am ay problème technique au dernier moment waaye incha allah dinañu euh, jéem pour euh, li ñu waroon a wone yëpp mën a jàll ci kàddu yi kon boo bëggee dellu ci racinu madiankisme benn yoon rekk ngay am mooy Mamadou ame fondateur bi mooy kan ak lan moo ko inspiré mooy kan euh, lii bi doon euh, sàll bi doon euh, waxtaan ci famille bi indi na ci lu bari ci turu famille bi te muy lu ñépp xam juddu suyma gis naa dat bu ñu def ci Euh, écriteau bi nekk ci bunt bi sax mais xaw na am tuuti wuute ak date yi ñoom professeur Daoud euh, di jàngale judd suyuma vers 1800 bokk na ci ñi ko jàngal Thierno Aliya mu bokk jamono ak El Hadji Umar Taal Umar Fuutiyu Taal mais mag ko aslëf trajectoire spirituelle am nag maanaam jaar-jaaram ci yoonu yàlla moom ak Cheikhu Amadou ànd nañu lu bari waaye ñu ngi xàjjaloo ginnaaw Abdul Karim jàlloo ndax Cheikh Umar al Fuutiyu dafa dem Màkka moom mu des ci réew mi ku ci nekk ndox mission nag ba yàlla man may ko ci ndam macha allah bokk na ci étape yi nga xam ni dafa marqué histoire Maadi Mamadou Amé retraite spirituelle bi mu def coofi bi mu amee ñaar fukki at maanaam xalwa bu yàgg bu xóot bi mu def coofi xalwa nag dafa bari lu ciy baatin yoonu histoire nekkul ci loolu mais dinañ ci dellu si loo xam ni moom histoire euh, gëstu na ko ci li taxoon na jóg xalwa bi bokk na ci li ko taxoon na jóg 1800 bi 28 bu ñu dégloo ku ñuy wax Yves Saint-Martin ci téere bu mu bind ci 1940 1989 kila la mission maanaam déclarer ni moom mooy mahdi mi nga xam ni dafa war a jubbante diine ci gox booba ci réew mi bokk na ci trajectoire am exilu ñaari at boo xam ni def na ko njaambur waaye exil booba di xéewal ndax mu li mu jur mooy dafa indi kóllëre gu rëy digganteem ak waa kokki ba loolu moo sabab ñu jox ko fa Penda Buyo ba mi nga xam ni moo jur Ibra Penda Buyo dinañ ci dellu si ci kanam incha allah bi mu jógee gàddaay ga nag ci njàmbur ci la ñëw koodit ndax delluwul suyma wala bu fa delloo it yàggu fa ñëw koodit waaye mënu faa yàgg ndax nañu doon dunde jamono boobu bokkul ak moom li mu soxla woon mooy fu dal fu mu mën a sampe reeni confrérie bi nga xam ni moo ko tax a jóg ci la fonde nag nag Wouromadio muy dëkku boppam ci 1830 boo xoolee digganteem ak El Hadji Omar ginnaaw ba ñu àndee teeru Cheikh Abdoul Karim Diallo seeni contact bëriwul bi El Hadji Omar al Fuuti yu Cheikh Omar al Fuuti yu jógee Màkka am na historien yu bëri yu ni El Hadji Omar 1847 ñëw na Wouromadio ndax boobu dafa bëggoon maadi yu ànd ak moom ci fergo fergo mooy mouvement bu rëy boobu nga xam ni moom la waroon a def jëm ci penku bi Yves Saint Martin bokk na ci ñu ko dëggal ci téereem boobu ci 1989 moom nag loolu mooy ci tënk rek lenn lenn ci trajectoire am mi ngi génn àddina ci le 5 septembre 1862 à Ouroumadiou ñu denc ko fa boo tënkee jaar-jaar yi ba pare nag li ëpp solo mooy nga indi influence yi nga xam ni moo wàcc ci moom moom la gëstu ba tax mu indi tijaaniya boo xam ni bokkul ak beneen xeetu doxalin tijaaniya ci réew mi bokk na ci li waral loolu mooy influence zawaya influence zawaya mooy influence boo xam ni dafa jóge ci naari zawaya wàcc ci Mamadou Xame mu boole ko ak ya loolu nekk originalité ci madiankisme loolu nag boo ko toppee da ngay gis ni Mamadou Amee dafa gëstu te dafa fréquenté ay këru diine yoo xam ni ki ñuy wax nasru diin dinañ ci dellusi dafa amoon influence fu mel ni daaray kokki nee nañ leen def na ñaari at kokki ginnaaw bi dem na walata ci naar yu ñuy wax naari tagaan foofa aussi gën na faa gëstu li ñuy wax influence zawaya frekante na tamit ci biir tagaan batam tam tribu bu ñuy wax Ida Waysh xeetu naar la yoo xam ni ñoom it dañoo nampoon ci filosofi Nasruddin Mahdi yu séjourné na mit Trarza ci naar yu ñuy wax awla daymaan foofa nag la gën a xóotale influence u Nasruddin looloo tax madiankisme li ko wuutaleeg doxiinu tijaan yu bari mooy syncrétisme religieux la maanaam dafa indi influence u naar boole koog tarixa tijaaniya loolu nag boo ko gëstoo tuuti da nga koy daal di comprendre ndax ci dix-septième la ci bëj gànnaaru euh, moritani fu ñuy wax la dafa am lu fa xew muy char bubba char bubba mooy la guerre de bubba li ko tax a jóg mooy réformer islaam maanaam dundalaat diine ki ko yëkkati mooy Nasruddin guerre boobu ñi ko séqoon mooy Hassan ak Zawaya Hassan mooy naar yoo xam ni ay politiciens lañu zawaaya mooy naar yi nga xam ni ay sëriñ lañu guerre boobu nag dafa mujj am ay conséquences maanaam dafa jur beneen guerre mooy ginnaaw bu Nasruddin àndee ak zawaay ba jël ndam li ci kaw Xasan yi yamul ci Mauritanie dafa génn Mauritanie dugg ci réew yu ñuul yi réew yu ñuul yu mel ni waalo yu mel ni fuuta yu mel ni tooro bay loolu mooy sababu ginnaaw bu ba weesoo am fa ay communauté musulmane yoo xam ne dañ faa des ñooñu nag ñoo dem ba jur Ceerno Suleymaani Baal ak ñu mel noonu maanaam esprit ba dafa des Fuuta doon ay communauté yoo xam ne noonu Nasruddin doon dunde dañ koo téye ginnaaw bi nag loolu bokk na ci li jur madiankisme boo jàngatee madiankisme da ngay gis ni fi mu daje ak eh, école Nasruddin ñi ñuy wax Tashumsa wala Zawaya da ngay gis ni ñu jigee ci objectif gis ni ñu jigee ci stratégie gis ni ñu bokke doxalin ci jihaad gis ni ñu bokke doxalin sax ci ni ñuy sacrifier seen bopp pour diine mooy li ñuy wax agiographie boo taxawee ci objectif yi lan moo doonoon objectifu Nasruddin ak Zawaaya li taxoon na jóg Nasruddin mooy defaraat ay jikko ci réew yoo xam ni islaam la ñuy tuddoo waaye dunduñu ko bokkoon na ci objectifu Nasruddin ba tey buur yi nga xam ni dañuy not euh, baadoola jóge ci réew mi boo jàngee téere boo xam ne ki ko bind mooy Chambonnon mi ngi naan Nasruddin bokkoon na ci ay kàddoom ni yàlla waxul benn buur nga jël alal walla nga rey walla nga jàkk jaam ñi nga xam ni ñoo nekk ci sa suuf peuple yi defaruñ leen yàlla sàkku leen ngir buur yi buur yi la yàlla sàkk ngir ñu jariñ peuple yi loolu bokkoon na ci enseignement yu Nasruddin boo indee stratégie maanaam ni mu doon doxale da ngay gis proximité ak cheikhu ndax li ñu nettali ci Nasruddin ku gëstu tuuti histoire Maadi ak cheikhu da ngay gis ni loolu moo ko taxoon a jóg bi muy dugg Jolof ak bi muy dugg Kajoor waaye bokkuñu rekk ay objectif dañoo bokk stratégie maanaam doxaliin te fi ñu dajee ci doxaliin mooy tajdid tajdid boo ko bëggee firi mooy li waral nit di woote mahdiyu la xewoon Mauritanie ba Nasruddin di jóg woote mooy li xew biir Sénégal ba Mahdi jóg woote loolu mooy lan mooy buur yoo xam ni dañoo not seen peuple impôt yoo xam ni teguñu ko fenn xanaa wut alal ak ginnaawal diine donte jullit ngay tuddoo bi loolu amee nag la Nasruddin defoon ca Mauritanie moom la Maadiyu taxawe ci senegaal waaye avant mu koy taxawe dafa posé wu benn question dañuy réew bu yàqoo ba tollu fii lan mooy jox légitimité nit mu jóg jubbanti ko lan mooy tax nit am sañ sañ-sañu ni réew mi doxatul damay jóg taxaw jubbanti ko lan mooy joxe sañ-sañ boobu sañ-sañ boobu lenn moo koy joxe mooy nga am màqaama mu jaddit maanaam yàlla jagleel la pouvoiru nga jubbanti mu jàddit yàlla moo koy def ci doomu aadama nga xam ni mission day bokk jubbanti diine bu yeggee ci yàqu maadiyu dafa yeggoon ci maqaama tajdid waaye eh, maqaama tajdid ak mujaddid doo jóg rekk ni moom laa nii laa koy doxalee ndax dafa am eh, doxalin yoo xam ni dafa wuute ci tajdid ak mujaddid fii ci Afrique sowu jant ñetti xeetu mujaddid ñoo fi am bi nga xam ni al suyuti moo ko indi alsuyuti daf ni maadi yu benn lay doon par moom foofu la taxaw almaxiili daf ni maadi yu benn lay doon ci jamono dootul ñaar ahmed baaba di beneen boroom xam-xam mu ni maadi yu mën naa doon yu bari mën nañoo sax bokk jamono waaye ku nekk day am gox boo xam ni yow fa nga war a liggéeyee kon soo indee ñetti xeetu mu jaddit yooyu da ngay gis ban la ci maadi yu tànn ndax maadi yu dafa woote ni mu jàddit la maanaam moom mooy maadi yu waaye weddiwul maadi yu keneen wootewul ni mooy maadi yu ci àddina dafa woote ni mooy maadi yu fa mu dëkk ak li ko wër boo jàngatee loolu nag kon li ngay gis mooy tasdiidam conception bi mu gën a jege mooy bu Ahmed Baba maanaam maadi yoo xam ni mën nañoo doon yu bari mën nañoo bokk jamono foofu la teg tajdidam kon stratégie bi objectif yi wax nañ leen ko sànq mooy jubbanti diine ju yàqu wax nañ leen stratégie bi mooy tajdid ak mu mujaddid woote maadi yu mu des nag li nga xam ni moo jigéele Nasruddin ak Mahdiyu ci doxaliinu jihaad li leen boole ci doxaliinu jihaad li tax nga mën a expliquer ni inspiration mahdiyankisme dafa dellu ba ci Nasruddin mooy dafa am lu ñu théoriser li ñu théoriser mooy boo jàngatee aw xeet dafa am ñoo xam ni dañoo murtat maanaam ñoom bokkuñu ci diine nee na pour ñooñu sikki sàkk amul mu jaddit dafa war a dal ci seen kaw am na ñoo xam ni dañuy moy yàlla dañoo bari ay bàkkaar waaye yemuñu ca dañuy jéem a layil seen bàkkaar yooyu ba teg ko ci yoon tudde seen bopp jullit waaye di layal ay bàkkaar ñu ni ñooñu donte dañuy tudde seen bopp ay jullit dañ leen di delloo ci ñi jëkk ñi nga xam ne dañoo murtat ba hésitation amul ci ñoom ñu ni ba tey kilifa àdduna woo xam ne dafa not di jël lempo yu lewul di jàpp nit ay jaam dañ koy delloo ci catégorie ku murtat bi ñu théoriser loolu nag ki murtat kiy bàkkaar di ko jéem a layyil ak kilifa àdduna yoo xam ni ñooñu lañu àndal ñoom ñépp ñoo bokk benn mbuus yell na ki war a jubbanti diine jël doole jàmmarloo ak moom noonu la Nasruddin justifié jihad parce que jihad day lu garaaw loo xam ni doo jóg rek bocc jaas ni damay jihad dangay koy justifié da ngay layyil lu tax yow ñii di woote yam ci xalima yow ngay woote weesu xalima bocc jaasi dafa am théorie yu ko war a jiitu euh, maadi yu nag téw ni mu théoriser jiyaat dafa méngoo kiif-kiif ak ni Nasruddin théoriser jihaad ta muy koo xam ni non seulement jàng na téere Nasruddin ci kokki waaye dem na Tagan dem Walata nga xam ni kon fa mu jële ni mu théoriser jihaad mënul jóge fenn lu dul ci Nasruddin ku mel ni Yves Saint-Martin loolu mooy euh, loolu mooy gisinam ñu bokk ba tey beneen gisiin moom Maadiyu ak Nasruddin ci ni ñuy jihaade xam nga justifié nañu li tax jihaad di jóg waaye bokkul ak ni ñuy jihaate Nasruddin ni mu doon jihaate mooy daf daan dugg ci dëkk su duggee ci dëkk du dal ci kaw nit ñi waaye day woote ku ko nangul ànd ak moom ku ko nangul nga xam ne nanguloo diine nag booba lay door a dal ci sa kaw ku nekk xam na ni Amadou Cheikhou noonu la doon jihaate dinañ ci ñëw sànq ci péripétie bi nga xam ni seqoon na ko ak buur ba Jolof Bakantam xari jaloor daawul jóg rekk dal ci kaw nit daf lettre maanaam mission diplomatique daf ko daan jiitu mu bind la lettre mbaa mu yónnee la ndaw waar la delloo la ci yàlla woo la ci li muy woote boo wuyuwul nag lay door a envisager dal ci sa kaw ku ne xam na ni Cheikhu Amadou noonu la doon conduire jihaatam boo xoolee xeexam yi nga xam ni ñoo gën a siiw xeex yi bari na torop mais 19 ñoo ci gën a siiw à part coowaan amul benn xeex boo xam ni initiative bu boppam la maanaam daf ni damay jóg dal ci kaw diw déedéet 18 yépp dañ ko tooñ mu fayu kon boo xoolee da ngay gis ni mook Nasruddin boo nee cheikhu mooy Muhammad ndax moom moo incarné ni mu conduire jihad Mamadou Amé jotul jihaad lu bari boo bëggee xam doxaliinam ci jihaad maam saa conduite du jihaad da ngay wàcc ba ci cheikhu mi nga xam ne moo doonoon acteur principal bi loolu bokk na ci li leen jigale objectif stratégique bi maanaam tajdid ak euh, conduite du jihad justification du jihad tomb bi leen mujj a boole nag mooy ni ñu bokkee agiographie maanaam agiographie mooy mujjug kilifa kilifa goo xam ni dee ak naan ci ndox mi la yamale kilifa goo xam ni dafa jël bakkanam yoole ko diine nasru diin noonu la dunde ba daanu euh, ci xeex bu ñuy wax xeexu tin yif daat ku xam euh, gëstu tuuti histoire di nga xam ne El Umar noonu la dundee ba ñu mujje koo gis ci Bandiagara Cheikhu Amadou noonu la dundee ba ñu mujje koo gis ci Samba Sadio donc Nasruddin ak Cheikhu Amadou dañoo bokk ay mbir ba bokk ni ñu jële seen bakkan yoole diine kii ca Tinif daat kii ci Samba Sadio kon anaam bañ nooteel kenn defu fi lu toll noonu dem bay waaj a génne français yi réew mi donc paradoxe mooy jihaad ju baree doole noonu bi mu tolloo ci njobaxtalu dooleem ci 1874 Cheikhou amadu à Saint-Louis moo téye réew mi ndax téye na Tooro téye na Jolof téye na Kajoor mais li lay jaaxal mooy benn defet rekk di Samba saajo tax loolu yépp génn ay loxoom réew yi mu téye woon Samba Sadio ñëw mu génn ay loxoom mais boo xóotalee da ngay gis ni du paradox li ko taxoon a jóg du téye nguur ak ay réew waaye def diine ci doomu aadama yi réew yi dellu nañ ci loxoy buur yu ñuul ya waaye nit ñi sax nañu faw di ay jullit loolu moo doonoon objectif am looloo tax ñuy wax de déterritorialisé kon boo defee constat boobu ci ngay door a mën a dégg nag projet Cheikhou man cee dugg waaye bala ngaa dugg ci projet bi nga wax tuuti kan mooy Cheikhou Amadou euh, doomu Maadiyu taawu Maadiyu bi baayam génnee àdduna tubaab yi proposé ko mu nekk chef de village commandant de Podor moo ko proposé loolu mu nangu ba 1869 amul woon jafe-jafe ak tubaab yi booy liir rapport politique yi waaye li waral seen diggante commencé yàqu mooy mbas mu xewoon ci at moomu ci 1800 69 mel ni li xew tey rek te gën koo garaaw ndax booba moyen yi am pour euh, xeex ak mbas amul woon muy xeex euh, feebaru choléra Cheikhu nag théoriser ko bu xutbaa wax ko mu ni mbas mii fi xew yàlla moo ko wàcce pour nattu nit ñi mu ni nattu nag dafa am ay façon yàlla buy nattu yéefar da koy sanctionner punition la buy nattu kilifa diine da ko bëgg a yéegal ci maqaama buy nattu jullit dafa bëgg mu dellu ci boroomam mu ni kon nattu bi nga xam ni moo fi wàcc dina faagaagal yéefar yi doon punition ci ñoom dina bari kilifay diine yoo xam ne looloo leen di yéege ci ba waaye jullit dañoo war a joggi ci nattu bi pour delloo seen bopp ci yàlla noonu mu ko théoriser nag marqué nit ñi réew mi fàq wuti ko tubaab bi defe ni day taal jihaad booba Maba nekkatu fi El Hadji Umar génn na àdduna Cheikhu rek moo fi nekk di tenir discours bu toll noonu réew mi fàq wuti ko tubaab bi ni day taal jihaad daa di jël initiative wu attaqué Wuro Madiyu bi ñu attaqué Wuro Madiyu nag loolu moo radicaliser Cheikhu mais comme ni ma leen ko waxee léegi jógul rek dal ci seen kaw moom doxaliinu malikisme la yoroon ci jihaad da ngay woote ba ñu gàntul la ba mu wér mu door laa attaqué wala ñu dal ci kawam mu fayu te li ci ëpp dañoo dal ci kawam mu fayu li tax ñu attaqué wu Romadi yu cheikhu radicalisé wu nag ay rapport la yu tegaloo benn bi capitaine Noué commandant cercle bu podoor moo ni cheikhu mi ngi dajale cere ju bare bari lim ci jublu mooy woo nit ñi taal jihaad te booba yàlla xam na ni tabaski moo tax muy dajale cere ju bari waaye capitaine Noué noonu la interprété ni ñu doon préparé tabaski bi ci des rapportu Yoro Diaw chef canton bu Dimar mu ni nit ñi daal ni seen esprit yi mel fu ñu toll ñu ngi sikkar ñu ngi wasifa am na lu ñuy préparé moom rapport am loolu la ci def fermentation des esprits rapport bi ci des commandant civil bu Dagana moo ko def yónnee gouverneur ni ko cheikhu taalibeem yi nekk ndar yépp ñu ngi koy fekki dafa bëgg a taal jihaad loolu moo waral gouverneur euh, pine la laprade dal di jox ordre capitaine de vaisseau Aristide Vallon mu attaqué Wuro yu ci 1800 69 lakk dëkk ba def seen rapport opération réussi village de 500 cases entièrement détruit taal nañu juróomi téeméeri néeg ya fa nekkoon nga gis ni déjà jamono jooju dëkk bu rëy la woon ndax 500 cases du ay caaxaan ni rey nañu vingt 24 ci ñañ fa fekkoon jël nañu euh, ay centaine chèvre maanaam ay bëy ak ay xar daal di nag kañ seen armes yi ñore muy chassepot chassepot arme admirable et terrible loolu mooy rapportu capitaine Vallon mi jiite woon xeex bi waaye ndam la foofu la yem ndaxte lakk nañu juróomi téeméeri néeg waaye mënuñoo taal kër Cheikhou dëkk bi yépp dafa tàkk fi Cheikhou dëkkoon des fa léegi nag loolu jaaxal leen ñu defaat yeneen ay rapport gouverneur yi bëgg naa xam lu tax ngeen lakk Wouromadio bàyyi kër Cheikhou commandant yi nekkoon ci terrain bi répondre ko ni ko lakkuñu ko bàyyi ko moo bañ a tàkk gouverneur ni leen loolu nag foy na ndam li ngeen amoon ndax nit ñépp biir fuuta li ñu jàpp mooy Cheikhou am na lu mu àndal tubaab yi mëna mënaluñ ko dara ñi ci des mëna mënaluñ ko dara mu ni kon succès militaire ngeen am waaye en fait défaite politique la pour la colonie waaye ñoom tooñ nañu lakk nañu wuramaat yu taal nañu euh, euh, fitna seen diggante ak Cheikhou loolu moo waral moom tamit mu jël revanche nag euh, ci ñi nga xam ni ñoo àndoon attaqué ko te fi ngay gise ni dafa am finesse politique ci 1869 avant muy lancer campagne am moom Cheikhou dafa observer réew mi gis ni colonie bi maanaam tubaab yi booba dañoo cate booba daal dañoo nekk ci instabilité bi mu analyser dafa gis ni Pinet-Laprade mi yabale woon ñu lakk wuro Wuromadiyu choléra moo ko rey le 18 août 1869 choléra bi Cheikhou woote woon ni xutba woon ni li ko tax a jóg bu dee ab noon mooy faagaagal ko gouverneur la laprade choléra moo ko rey 18 août 1869 moom mi yóbbu woon Vallon mu lakk Wuro Madiou Vallon moomu lakkoon Wuro Madiou jël retraite anticipée ñibbi beneen administrateur Flies ñu summi ko mu ñu mu ñibbi Toulon ki remplacé pine la Prade di gouverneur Valière xamul réew mi Cheikhou ni kon fi mu ne réew mi newul ci ay loxo dama ciy profiter nag fayu liñ ma def kon nga gis ni kilifa diine la waaye dafa amoon xereñte gu rëy ci wàllu politique ndax ku am finesse politique moo mën a def analyse boobu ba xam ni jamono ji favorable na pour nga fayu tooñ giñ la defoon loolu nag moo waral ay xeex yu bari euh, du ñu am temps wu taxaw ci fu mel ni Euh, Pétogne euh, ak feneen dañuy dugg rekk ci ñaareelu état bi ndax bu leen fàtte ni am na laaj bu ñu laajoon bi ñuy introduire mooy lan mooy étape yi nga xam ni moo tasaare madiankisme ci réew mi bokk na ci étape yi nga xam ni ñoo tasaare madiankisme ci réew mi mooy dugg bu Cheikhu Amadou dugg biir Jolof jël Jolof foofu nag lu jara analyser la ndax Cheikhu amadu moom mooy buur ba Jolof bu santul Njaay pendant cinq ans trente-neuvième buur ba Jolof mais nag mu wuuteek buur ba Jolof yi ci des moo tax mu jara taxaw tuuti analyser lan moo waral mu dugg Jolof ndax ñoom daawuñu làmbatu lu ñu def rek expliquer nañ ko léegi am na analyse yu ñu def ba xam fan la ñuy teg seen tànk facteurs yooyu nag boo ko analyser daf cee am yoo xam ni ay facteurs subjectif la maanaam loo xam ni dafa tukkee ci ñi ko jege ceexu ñi ko jege woon wolof yi dañ cee am doole Ibra Penda Buya yaayam wolof la Baraamaadiyu yaayam ci famille famille yiy rañe ci Jolof ci la bokkoon boo xamee nag am nga rakk yoo xam ne yéen a bokk benn baay te ñu bari doole ci réewu wolof yi dugg ci réewu wolof yi dalay yokk doole facteur subjectif yooyu boo analyser en tant que historien da nga koy gis waaye danga koy gaaw a weesu dem nag ci facteur objectif yi bokk na ci facteur objectif yi facteur istorique maanaam li ko tax dugg Jolof am na ci loo xam ni histoire moo la koy expliquer bokk na ci topp exemple Nasruddin xam nga wax nañ leen ni Nasruddin xeexam boobu di Charbouba li ko taxoon a jóg mooy opposé Xasan yi naaru politicien ak Zawaya yi naaru euh, sëriñ waaye xeex bi yamul biir moo Mauritanie dafa mujj jàll ba ci réew yu réew nit ñu ñuul yi imité exemple Nasruddin mën naa expliquer lu tax Cheikhu moom tamit dugg ci réew nit ñu ñuul mel ni euh, Jolof am na facteur démographique maanaam loo xam ni mbooloo mi ni ñu tëdde moo koy expliquer jolof dafa bari woon ñoo xam ni ay taalubeem lañu boo duggee foo xam ni sa ay taalube dañ faa nekkuñu teeru la daf lay yokk doole facteur démographique am na tamit euh, facteur politique facteur politique bi mooy gisin boo xam ni cheikhu daf ko am ci taxawaayu buur ba jolof bi fa nekkoon jamono jooju di bakkantam xari jaloor bakkantam dafa jàmmaarloo ak maba te maba doonoon nitu cheikhu bakkantam xarijaloor bi cheikhu amee diggante ak sëriñ kokki sàmba aminata moom dafa jàppale sëriñ kokki sàmba aminata loolu nag bu doxee sa diggante ak nit Euh, day expliquer li tax kooku bu jógee mën na laa def ab noonu bakkantam xari jaloor fu seexu masa jublu mu ànd ak ña ko noonu loolu mooy facteur politique am na tamit facteur géopolitique maanaam ni réew mi tëdde jamono jooju bokk na ci néew doole goo xam ni jolof jamono yooyu néew na ko doole ndax jolof bariwul nit te mooy réew mooy gox bi gën a yaatu ci réew mi armeem néew doole cheikhu analyser xam loolu boo bëggee foo dugg samp fa diine da ngay tàmbalee ci réew moo xam ni moo gën a neex a contrôler bokk na ci it euh, koom-koom boo xam ni dafa néewoon doole biir jolof ba intéressé wul français yi cheikhu analyser xam ni défendre jolof jaralul tubaab yi ñu jàmmaarloo ak moom donc enjeu marginal boo xam ni du mobiliser tubaab bi moo tax mu analyser facteur géopolitique analyser facteur historique analyser facteur démographique boo boolee loolu nag ak njabootam bi nga xam ni dañoo am doole biir Jolof mooy tax nga comprendre bi mu jógee lu tax tàmbalewul Kajoor mais mu tàmbalee Jolof waaye nag Jolof li ci ëpp solo mooy dafa jëmmal dafa illustrer li ñu waxoon sànq ni cheikhu li orienté action am mooy de déterritorialisé maanaam liggéey boo xam ne li la intéressé du réew mi ak nguur gi waaye defar nit ñi loolu jolof da koo jëmal ba mu leer nàññi boo indee forme jëmal na ko boo indee euh, fond jëmal na ko boo taxawee ci forme jàngat acte militaire yi nga xam ni moom la Cheikhou posé bi muy dugg Jolof ndax moo ëppoon doole fuuf ba kantam joloor mais jógul rek dal ci kawam da ko bind lettre lettre bi mu ngi ci archive yi mel ni professeur Daouda xam na ko lettre bu rafet te daw yaram naan ko su fekkente ni danga bëgg tedd ci àddina tedd ci àllaaxira bul ginnaawal àllaaxira ndax àddina ndax boo defee loolu da ngay ñàkk ñaar ñépp boo bëggee tedd àddina ak àllaaxira jiitalal àllaaxira doo ñàkk fii doo ñàkk fële daldi nag tëj lettre bi ak nuyoo yu rafet yoo xam ni mu ngi tukkee ci mbokkam Ibrahima Madiou Bara Ibrahima Madiou lañ ko doon wax mbokkam la ndax ci côté yaayam euh, mbokkam la xam nga kiy bind lettre bi ñëwul pour dal ci kaw kenn waaye bakkantam xari dafa jël lettre bi jëlul beneen feuille wëlbati ko ca page ba ca des la bind ni ko euh, bind ko sax gouverneur la bind ni ko jot naa lettre Cheikhu Amadou waaye bi ma ko jotee ñett ñi indi woon lettre bi ñoom ñépp laa rendi di xàttit waaw léegi nag yónnee ma ay fital yónnee ma puudar ndax xam naa ni dina dal ci sama kaw loola boo jàngee lettre bi moom la ci def bi Cheikhu yëgee ni euh, rey nañu nag ndax Cheikhu foo masa a attaqué nitam dina réagir am na ñoo xam ne dal na ci seen xam kaw te ay taalibeem yu ndaw yu doon yalwaan la ñu jàpp def leen jaam nitam kenn du ko laal bi bakkantam reyee ñetti messager am nag mu dugg Kajoor mu euh, mu dugg Jolof mais bi mu duggee Jolof sax ñëwul taal yangang yo déedéet dafa wër yang-yang capital bi communauté bi sallallahu alayhi daan def téye teen yi bi mu téyee teen yi lu yàgg amatuñu fu ñu jëm ñu door a jébbulu donc siège la jëlee yang-yang ak jolof mais dalul ci seen kaw ray ak noono deful loolu ndax ma ngay sàmmoonte ak jihaad loolu mooy sur la forme da ngay gis ni euh, nguur intéressé wu ko waaye boo duggee ci fond ci ngay gën a comprendre lu tax loolu ndax dara ci luy nuru pouvoir intéressé wu ko Eunice Charles wax naa ko léegi dafa analyser ni Cheikhu dunde Jolof bu baax nee na mooy trente-neuvième ba Jolof loolu ñépp xam nañ ko waaye musula wuyoo ba Jolof li mu nekk buur ba Jolof yépp ay lettre am Cheikhu Ahmadou la koy signé xam nga kooku tiitre bi intéressé wu ko bi mu ñëwee Jolof toogul yang-yang baraamaadu yi la fa bàyyi moom continuer liggéeyam bu ko nguur intéressé woon ci capital bi lay installé wu beneen bi firndeel ni conquête politique intéressé wu ko woon ñam fa fekkoon ñu di ay borom ndomba tànk dàqu leen mais da leen faa bàyyi teg leen nag ay charte ku nangoo tuub ku nangoo bàyyi feeti ceddo di feete tabaski tamxarit ak yooyu feeti jullit yi ku nangoo samp sab dëkk jàkka donte néegu ñax la dinaa la fi bàyyi ku nanguwul lool nag ma teggi tekki sa ndombay tànk teg fi keneen ñi nangu ñépp mu bàyyi leen fa moom daal bi mu duggee jolof ñaari cër la séddale muy cërub imaam ak cërub xaali àttekat loolu moom bàyyewu ko kenn nga gis ni diine ko ñor bi mu séddalee ci ñu ko jege ba mu jeex dajul réew mi ndax Jolof dafa yaatu dafa woo ñi nga xam ni ñoo àndoon ak Maba ca Siin te bi Maba nelawee ñu leen di gunduxataal woo leen ñu fekk si ko bi ñëwee ñoom la samp ay xaali samp leen ay imaam moo tax Ernest Charles bi muy conclure article ci Cheikhu amadu au Jolof daf ni ki samp diine Jolof du kenn ku dul Cheikhu Amadou ndax stratégie boobu mu indi moo tax diine am ay reen jolof keneen ku fa ñëw danga dolli ci li cheikhu liggéey mais cheikhu moo samp diine jolof loolu mooy ñaareelu étape bi cheikhu amadou au jolof indil nañ leen li ko sabab indil nañ leen nam fa duggee te mu jëmmal ni nguur gi intéressé wu ko defar nit ñi moo ko intéressé ñaareel ba mooy campagne kajoor li tax mu dugg kajoor kajoor dafa doonoon booba jamono réew moo xam ni ay nooni seexu ñoo fa fees dell di fa jóge di ko attaqué euh, jolof euh, tuube sanoor attaqué na ko ba tàyyi jóge kajoor attaqué ko jolof daw dellu kajoor alburi def na lu mel noonu ak yeneen buur jarul may tudd seen kër euh, bi attaque yooyu baree kajoor doon base arrière ñu fay jóge di dal ci kaw Jolof nag ci la jël ay disposition am surtout ci 1874 bi mu yëgee ni am na ñeenti buur yoo xam ni dañoo def coalition bëgg ko attaquer biir Jolof mu génn Jolof nag fekk si leen ñoom ci seen bopp biir Kajoor moo leen ëpp doole ñu daw mu occuper Kokki def ko baasam loolu mooy sababu mu dugg Kajoor jógul rek duggu Kajoor Kajoor dafa nekk espace boo xam ni base arrière la bu ay mercenaires ak ay buur yoo xam dañuy ànd ak ay mercenaires di jóg di attaquer Jolof en réaction nag moom it mu jël initiative bu dugg Kajoor occuper ko loolu mooy in euh, explication politique bi mais explication religieuse mooy moom diine ko intéressé Jolof téye na ko bàyyi na fa baraamaali teg na en place dispositif boo xam ne dina def diine ci nit ñi day dugg meneen réew ndax teritoire ak ay frontières intéressé wu ko looloo tax mu euh, jàmmaarloo ak buur yu ñuul yi nga xam ne dañoo àndoon ak tubaab yi jàmmaarloo yu bari notamment ci 1874 fu mel ni kokki belel sàq coowaan ak Samba Sadio ci ñaar yooyu la ñuy taxaw ndax ñoo ci ëpp porté coowaan d'abord coowaan accomplissement la tubaab yi nekkuñu fa woon coowaan moo tax boo demee ci seen archive yi dañ naan coowaan escarmouche la escarmouche mooy xeex bu ndaw waaye coowaan du escarmouche la fa xew moo am portée ba kenn mënu ko tuddee escarmouche ndax coowaan bi nga xamee ni euh, déstabiliser na armée buur yu ñuul yi doon jàmmaarloog ñoom ba ñu def ñaar ñi jëm penku ñi jëm sowu moom daf leen a bàyyi continuer wuti géej gi rivage de l'Atlantique booba am na lu ko fa yóbbu waaye ba mu yeggee même ñi àndoon ak moom di waa seloobe waa néeg ndeyam mi nga xam ni ñoo doonoon gàdd rapproché am fu mu dem ñoo koy topp ñoom ñoo ko topp ba mu yegg ci géej gi ña ca des moom dañoo taxaw di xaar ndax xam nañ ni lii dootul ab xeex ndax armée yi nekkuñu fa la muy wuti ci géej gi du ab xeex mais bi mu yeggee ci géej gi xam nañu lam fa doon wuti da doon symboliser ni mission egg na tey dexuk duwe la tàmbale woon di xeex ak tubaab yi jël na tóora jël na kajoor jël na jolof jokk na ñaari ndox yi maanaam dexuk duwe ak océan Atlantique noon yi dañ ni woon tere nañu ku julli ak ku wasifa ndar ak li ko wër maanaam ci réew mi réew yooyu yépp ma ngi fay julli ma fay wasifa jokk na ñaari ndox yi kon objectif atteint ndax fu noon bi daan aaye turu yàlla moom nee na taxaw na fa ni laa ilaha illallah donc coowaan accomplissement la waaye dafa utilise coowaan màndargaal ni mu bokkee ci diine def discours boo xam ni xam naa lu xawal làqu la mag ay waxtaan ak nit mu door koo xam waaye dafa rendre hommage ñi nga xam ni li ñu séddoo mooy taxaw xeex ak diine mu ni badar ba coowaan fu diine ma sa néewe doole góor yàlla moo jël jaasi jaay bakkan tuur deret ba taxawu diine commencé nag ci yonente bi ba yegsi ci moom honneur et gloire aux Fuutiyin Cheikh Oumar al Foutiou ak laam du julbe doom ja ñoom ñi nga xam ne ñoo yóbbu diine ba Karta ak Massina honneur ak gloire oribiyin euh, Maba ak waa këram ñi dugal diine Saalum honneur gloire au mahdiyin Mamadou ame mi xeex fépp ci réew mi ñun ñii waa këram ñooy continuer mission am dexuk duwe la ñu tàmbalee di kër Maadiyu tey xuus nañ ba tooy xib ci biir géej gi fu noon bi daan aaya turu yàlla taxaw nañ fa tey ni laa ilaha illallah kon gis nga coowaan kon di accomplissement waaye nag di moment d'affaiblissement militaire ndax armée bi dafa jóge néew doole mais loolu dootul problème ndax l'objectif est atteint li tax armée bi jóge fa néew doole mooy Abdoul Bokar Kane bi coowaan jàllee dafa ñibbi Boseya Abdoul Bokar Kane amoon taxawaay bu rëy ci armée bi di mbokk cheikhu di xaritam leneen li nga xam ni moo néewal doole armée bi bi coowaan jàllee mooy nit ñi dégg nañ li seexu wax moo tax ñu bari dañoo daal di takk seeni bagage ñibbi xeex bi jeex na defatuñ fi dara dañuy ñibbi defi leneen tuuti moo des ci armée bi après coowaan waaye li ko néewal doole dëgg dégg nag mooy ki nga xam ni moo doonoon puutru jihaad ji ki ëppoon doole ci jihaad ji di Ibra Penda Buyo dafa des coowaan te ku nekk xam na ni moo doonoon gayndeg jihaad ji coowaan la des armée la nga fa euh, malheureusement mun ñu ko exposé mais ñi ëpp ci fii dem nañ fa ba ko euh, ñun ñi dem nañ fa ba ziyaar ko loolu mooy coowaan beneen xeex bi ñëpp xam nag nga xam dafa dem ba doon symbolu euh, madiankisme mooy Samba saajo ñu taxaw ci tuuti ni ko cheikhu préparé ni ko tubaab yi préparé ni ñu xeexe rapidement mais surtout impact bi Cheikhou ni mu ko préparé mooy fajari sàmba Sadio bi mu jullee ba pare ndax nitu yàlla day xam day xam avenir am ñaan na ñaan goo xam ni mag ñi nee nañu ñaanuk tàggoo la yaa rabbi adwuuka bi diyaa il munawwiri wa bi riixi tayibi alladi yafuuhu min attabiati bi an tamla a shajaata xulubal mujaahidiina ijal tulua haadihi shamsi maghribal mustamirina ijal raayatal islaami lati lawnuha lawnu tabiati tu rafrifa fi samaa'il bilaadi ijal dima al mujaahidiina yurwi xaddan al ummatal islaamiya ñaan gu gudd la lii dañ ko cee def extrait rek mais fa mu tënke mooy defal dereti jullit yi nar tuuru tey muy liy suuxat diine ba faw xam nga kooka tàggoo na waaw donc moom noonu la préparé sàmba Sadio ci fajar gi ñaan gi la jëkke ba pare nag woo ñi nga xam ni ñoom la doon defloo istixaara ñaar lañu woon ku ñuy wax Moodu ngoom ak ku ñuy wax Bira Gay maami waa Ngay sëñ Moodu ngoom Cheikh woo ko ñoo dañoo ànd ba dànd camp bi mu ni ko doon naa la defloo istixaara loo gis mu ni ko man dey gis naa lu doy sëkk jaaxle di ñetti donj saabu yu seen dayo seen taay maanaam wuute bii jeex tàkk dellu di am ndox bii di waaj a jeex ma nga des tuuti ba ca des ni seng ni lu kenn laalul commenté wu ko mu turne ci maam Bira Gaye ni ko yow loo gis mu ni ko manit de gis naa lu doy sëkk jaaxle di ginaar gu fanaane boofu ay cuujam xëy nag naaw bàyyi fa cuuje seexu boole ñaari gént yépp fiiri ni leen gis ngeen bu wér mbiri Sàmba Saajo saabu bu dellu di am ndox mooy maadu yu sama baay sama sëriñ ba saabu bi waaj a jeex des tuuti ginaar gi fanaane boof ay cuujam mooy man seexu damay dem saabu bi ni seng ni lu kenn laalu nag mu ni mooy amari ndaag ca imaamu jihaad ji ca pete aañam kokki coowaan bal di tàkk jaas yay melax ngay sujjóot ak a rut ko en tant que imaamu jihaad am nga profil pour érité diine ji foofu nag dinañ fi taxaw pour indi interprétation analyse historique bi expliquer loolu ndax istorien du yam rek ci yenn kii euh, bi nga xamee ni loolu xew na cheikhu dafa comprendre ni fi ñu jublu dooley soldaar amatu fa solo maanaam enjeu bi dootul enjeu militaire mais enjeu spirituel fi ñu jublu tubaab yi ñoo ëpp doole ci réew mi waaye ëpp ñu doole ci ruuxu nit ñi kon diine ji dañ ko war a jox profil boo xam ni désormais mën naa pérenniser éducation spirituelle boo analyser noonu ngay gis lu tax enjeu bi dootul enjeu militaire cheikhu xam na ni tubaab yi yëg nañu ni mu téye réew mi tooro jolof kajoor yëg na ni ñu ngay préparer coalition bu rëy pour dal ci kawam lettre yu bari dem na Europe yi Marseille yi Bordeaux gaal yaa ngi fees dell ay kano ak ay chassepot di ñëw am nay informateur xam na loolu xam na tamit ni euh, ay mbokkam ñu ci bari ñu ngi tëdd ci toolu jihaad yi rakkam yépp ñu ngi tëdd ci toolu jihaad yi mën nañ leen lim benn par benn war nañoo xëy xeex daanaka genn benn mu kàllaf bu sant ba nekku fa bara maad moo fa des te ma nga jolof bara fekkewul njàmm njaay fekkewul Samba Sadio war nañoo xeex xam nañ tubaab yee ëpp doole il faut mu bàyyi diine ji ci ay loxo mu tànn le meilleur profil intellectuel imaam kenn ëpp ko doole ci diine kon mënees naa dégg lu tax bi dem jotee mu jël héritage dénk ko Amari Ndaag loolu nag raisonnement historique la côté tubaab yi nan lañu waaje coalition 3000 hommes la ñu indi juróom ñetti junni euh, juróom ñetti junniy nit armée Lat Joor Alboury nga ca biir troupe yoo xam ni troupe bi law la Mamadou Siley Amar Ibra Almami sàmba Gourma ak tubaab yi ñooñu bi ñu àndee 3000 lañu ñu jóge Saint-Louis ci le 4 février jaar muyit fanaan fa jublu penku nag wuti kokki li leen taxoon a jóg ñoom tubaab yi ci njaalbeen mooy appuyer maanaam dimbali buur yu ñuul yi mais bàyyi leen seen bopp ñoom ku ci nekk jëlaat sam réew Lat Joor récupérer Kajoor Alburi récupérer Jolof waaye mbir mi mu jul demee noonu ndax bi ñu ñëwee ba ci yoon wi ginnaaw ñoom buur yi dañ leen di appuyer ñoom ñoo war a def liggéey bi ñoom ñoo war a jiitu mais dameel Lat Joor nanguwul a jiitu nanguwul jiitu ndax fi mu jaar ak cheikhu ci 1874 beleel sàq coowaan yépp mu dàq ko xam na ni moo ko ëpp doole colonel begin mi nga xam ni moo doon moo jiite woon arme bi woo ay kilifa ci biir armée bi Ibra Fatim Sarr Mamadou Siley Amar Ibra Almami Samba Gourma def ak ñoom conférence ni leen lii Lat Joor décidé lu ko waral ñoom ñu confirmer li mu xalaatoon ni ko xam na ni Cheikhu Amadou moo ko ëpp doole moo tax du nangoo jiitu ndax su su jiitoo defet yi amoon 74 lay xalaat ni dina ñëwaat ci kawam moo tax bi ñu fanaanee pete ci le 10 février colonel Béguin changé dispositif bi armée bi nga xam ni moo jóge pete wuti kokki Lat Joor nekkatul ci kanam ca ginnaaw la nekk cavalerie ak tirailleurs français yi nekk ci kanam nag jël en charge xeex bi mais ba ñuy départ loolu du woon objectif bi du woon mission bi périspécie militaire yi jaruñu ci ciy dugg euh, xeex bi ñaari phase la phase bi ci jëkk li tubaab yi di bari bari doole ak buur yu ñuul yi ñu àndal ñoom it ñu yor armée yu rëy Cheikhu dafa indi stratégie boo xam ni dem na ba jekku leen ndax tubaab yi seen arme principal Samba Sadio moo doonoon seen kano yi ñu ëndoon 54 coups de canon la ñu préparé pour écraser Madianke yi mais Cheikhou joxe ordre ni leen canon bala mu laa mën a gaañ daf lay dànd il faut mu am distance il faut mu gis la tamit moo tax profiter leen ci terrain bi nga xam ni ay xur la ak ay tund yéen ngeen dugg ci xur yi bu leen taxaw ñu leen di gis da ngeen di raam wala sax ngeen di béréngu mu ni leen dagg leen ci ñax mi ngeen laxasoo ko ba bu ngeen di raam wala bu ngeen di béréngu duñ leen gis noonu la madiyanke yi def ba jekki rek jóg taxaw jige tubaab yi jege kano yi kano yi mënatuñ leen dara foofa jekku nañ leen armée bi déstabilisé wu armée tubaab bi déstabilisé wu begeen ni fu nekk nit jóge na fa ni nu ñuy def nu ñuy def ñu ngi ñuy bëgg a jekku mu ni ci rapport bi mu def euh, lu doy waar a am foofu mu ni Lat booba moo téye caabi xeex bi moo nekk ca ginnaaw Seexu ak waa këram dañu wër arme bi teggi canon yi teggi yi wër ba wër ndombo Lat nga xam ni bu Lat Joor reculer dal ci kaw tubaab yi mu àndal armée bi jaxasoo ñu ñàkk waaye mu ni bu Lat Joor fippoo ba nga xam ni Maadiyanke yi dinañu reculer tuuti distance bi canon yi am dinañ ko soxla loola nag moo am Maadiyanke yi ñëw nañu ba téye canon yi mais xamuñu nuñ koy manipuler Lat Joor def réaction euh, euh, commandant Rebo ak euh, Lamol utiliser chasse-peau Tijaan yi obligé dégager wu reculer bi ñu reculer woon nag ci la canon yi euh, am possibilité Euh, viser leen loolu moo waral ci deuxième phase bi ñu jekku Samba Sadio ci tënk noonu la deme bilan bi nag di bilan bu metti ndax 447 euh, morts maanaam ñi àndoon ak Cheikhou ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar tëdd nañu sàmba Sadio waaw euh, moo tax may wax ni ñun dañoo amul culture mémoire mais espace boo xam ni foo dox ci kaw armeel nga dox su ñu amoon culture mémoire dañ koy def euh, dañ koy def loolu tubaab yi di tuddee daawuda nan nan lañ koy tuddee di sax voilà patrimoine historique def ko mémorial boo xam ni lépp dañ koy clôturer defar ko ba mu rafet def fa jàkk nga xam ni kenn du fa sol dàll ah ndax foo joggi rek jàppal ni ci kaw armeel nga joggi loolu mooy Samba mais malheureusement ñun amuñu culture mémoire fàttaliku boolu bokkul tellement ci suñu culture bilan bi noonu la demee côté Madiyanke côté officier côté français yi aussi ñu bari des nañ fa quatorze bu dee ci tubaab yi rek quatorze soldats yoo xam ni ci ëpp ay officier lañu tëdd nañ fa madianque yi gaañ nañ gaañu metti quatre ci ñoom bu dee ci ñu ñuul ñi àndoon ak ñoom moom lim bi kenn xamul ni mu toll loolu moo xew Samba Sadio looloo tax mu di symbole mu yëngal nag réew mi sàmba Sadio dañ cee bàyyiwul xel mais dafa yëngal réew mi ba mu yëngatu dëgg dëgg dëgg boo ñëwee Kajoor kenn mënatul a téye Kajoor Lat dafa defoon bu sàmba saajo jàllee day ñëw rek récupérer Kajoor waaye loola sottiwul hmm? hmm? Hmm? ndax euh, jawriñ mbul Umar Ñaan ak euh, ñi mu àndaloon ku mel ni Nduri ku mel ni Diouf Bawol ku mel ni tanoor Gaye ñoom ñépp doonoon bay Seexu dañoo ànd dem nguraan tabax fa tata fas yéene résister donc Kajoor yëngutu moo tax euh, sooy analyser da ngay comprendre li tax tubaab yi bi Samba Sadio jeexee au lieu que ñu des ko ki jël seen temps dañoo daal di dellu ndar ndax xam nañ ni réew mi fi mu nekk nekkul ci ay loxo dañoo taxaw euh, lemru defaraat tuuti seen doole après jaar Tanim dem gaar Ferlu ci wetu Màkka Biram fanaan muyit daal di dellu ndar le 28 ñibbi nañu ndar bu yàgg taxawaaluwuñu Kajoor ndax booba Kajoor yëngatu na boo ñëwee Fuuta Fuuta gën a yëngatu ndax Abdul Bokar Kan wax nañ leen sànq ni bi coowaan jàllee dafa ñibbi Fuuta bi mu yëgee li xew euh, Samba Sadio dafa organiser représailles maanaam punition yu metti jëmale ko ci tubaab yi yokkul impôts yi ñu daan foy bu ñuy traversé dex gi di dal ci seen kaw bato yi déstabiliser Fuuta totalement di fayul bokkam ma xaritam ba Cheikhu Amadou boo ñëwee Jolof nag mooy fi nga xam ni euh, problème ya fa la gën a bare fa la gën a yàgg li ko waral mooy bi sàmba saajo di xew bara ma nga yang-yang di defendre royaume bi moom yang-yang lañ ko dénkoon ak jolof bi mu yëgee li xew Samba Sadio mu jóge yang-yang ànd ak ñenn ci ay mbokkam ak ay taalubeem ku mel ni Gibril Madi ku mel ni Almaami Daado ñu dem ci bëj gànnaaru Jolof organiser waat fa beneen armée euh, benn buuru Jolof bu ñuy wax Biram njéemé nga xam ni déggowul woon ak Alburi ñëw fekk si ko ànd ak moom ñu defar nag armée bu solide boo xam ni mayetuñu buur ba Jolof fu mu yekk ak nàkkam di ko harceler di ko harceler ba benn bis ñu attaqué yang-yang taal ko ci la Alburi nag woote wollu Lat ak tubaab yi loolu mooy origine bataay jàmm njaay ci wetu Linguère fa yu des euh, boo ñëwee Bawol nee nañ réew mi dafa yëngu Bawol moom li ko singulariser mooy maam Amari Ndaak moom bi mu jógee sàmba Sadio dafa dem Pire euh, dafa dem tàgg wari new Saalum mais yàggu fa la ko yóbbu woon Saalum mooy fekki Ibra Ba xam nga jeexitu jihaad ñi kon ñemee fat bariwul moo tax dafa fekk jeexiitu jihaad ndax moom ak Ibra Ba ak Cheikhu Amadou ñoo ànd keroog xeexu njum donc xamante nañu ay wóllëre lañu jeexiitu jihaad la ni moom am na pouvoir ak fitu fat ko looloo tax mu jubal directement tàgg ca Saalum waaye yàggu fa fa la jógee ñëw piir def fa at mu manqué tuuti jóge fa ñëw jaayaan def fa sept ans fa la sampaate kër door faa jóge nag ñëw sanc ba ci 1882 li singularisé Bawol moom mooy la fa maam Amari Ndaak installé wu def ko espace de la renaissance du madiankisme bokk tamit ci li yëngal réew mi euh, après Samba Sadio taxawaay boo xam ni sëñ Touba booba booba at yi bareegul mais daf ko daf ko cee def euh, taxawaay ndax bi réew mi yëngoo ba Lat Joor jaaxle dafa ni xaalima jaxate na génn fatwa layal ko moom ak Alburi maanaam ñoom ñi nga xam ni nee nañu ay jullit lañu ba pare jàkkaarloo ak yeneen jullit defal fatwa layal ma xaali ma jaxate génn fatwa ni Lat ak Alburi ak ña ñu àndaloon di ay jullit dal gi ñu dal ci kaw Cheikhu amadu diine nangu na ko ndax Cheikhu Amadou dafa doon woote ak yonent te ku woote yonent génn nga ci diine bi sëñ Tuubaa yëgee loolu mu génn fatwa weddi di xaalima jaxate wax bis ñu daje xaalima jaxate ni ko Moodu Mbàkke booba noonu lañ koy wooye dama génn fatwa nga def beneen weddi ko lu ko waral mu ni ko danga wax ni Cheikhu Amadou da doon woote ak yonent te ku woote yonent génn nga ci diid ku ko seede sëñ Tuubaa ni ko ku seede ni génn na ci dafa woote ak yonent mu ni ko Euh, waa sàmba saajo ñoo ko seede mu ni ko waa Samba Sadio mënuñu ko seede xam nga Samba Sadio ab dëkk la dañu xëy gis fas yu jóge penku ak fas yu jóge sowwu xamuñu seexu ba di ko seede waxal leneen mu ni ko waa Kajoor it seede nañ ko mu ni ko waa Kajoor yàgg nañoo jël ay ngànnaay di dal ci kawam ku doon noonu nit matoo ko seede ba di ko seede waxal leneen xaali xamatul lu muy wax mu ni ko Moodu Mbàkke da ngay sunu doom ñu jur la yar la waaye dafa mel ni yaa nu gën a sori ci yoonu yàlla nangu na lam ko doon wax donc euh, Samba Sadio dafa bokk ci li commencé révéler dimension Serigne Touba bokk na ci ay impactam euh, bi Samba Sadio jàllee nag beneen étape bi xam naa fa la ñuy jeexale léegi waxtu wi dab ñu mooy euh, madiankisme après Samba Sadio bu ngeen fàttalikoo mooy dernière tomb bi ñu woon dinañ ko waxtaane après sàmba saajo nag li indi renaissance su madiankisme maam Amari ndaag daf cay am taxawaay bu rëy ndax dafa fondé Thiénaba ci 1882 ñu bari ci jeexitu jihaad ji dégg ko fekk si ko mel ni maam Banda Diang Mayib Jóob Kër Yaaba euh, am ñoo xam ni diine dalee na ñor ñu dégg ni borom diine la fekk si ko am ñoo xam ni dañoo bëgg raw ci persécution tubaab bi ñëw làqu si ci wetam yooyu yépp nag boo leen boolee moo expliqué Thiénaba daal di développé doon dëkk bu commencé am envergure ci fa ni fa maam Amady Ndaak nekk à partir de 1882 mais euh, duñu ñu temps ñëw ci ni mu jàngalee tout ça mais ki développé confrérie bi nag jox ko dimension mooy maam Momar Talla moo tax man post fondateur laa koy woowe gis nga ñi sos këru diine yi loolu analyse historique la bu jar di bàyyi xel tubaab yi mayuñu leen woon fu ñu yekk seenu nag bay développé boo xoolee sëñ Touba dafa yar ay nitam waaye amul woon temps wu sanc dëkk yu bare organiser ay ay cheikh ak yooyu tubaab yi mayuñu ko fu mu yekke ak nàkkam boo ñëwee ci alaaji Malick noonu la def mayuñu ko fu mu yekke ak ñàkk ak nàkkam moo tax mu organiser séminaire njar ne former mag ñoo xam ne xam na ni ginnaawam dinañu mën a développer diine ji boo ñëwee canaba it lu mel noonu nga fay fekk maam amari ndaag la mu fa dund akus néew amul woon possibilité développer diine ji wuti ay mu xàddam déedéet ñoom amuñu woon loolu moo tax ñoom ñépp seen taaw yi ñoo développé seen tarixa yi ñoo samp ay muxaddam ñoo tabax ay jàkka ñoo organiser ay gàmm ñoom euh, ba gàmm yu mag en tout cas ñoom amuñu woon possibilité boobu boo desee ci canaba nag Maam Omar Talla moo joué role boobu moo tabax jumaa ji ci 1907 ba tubaab bi jamono jooju la belle mosquée lañ ko tuddee woon ndax c'était l'une des rares mosquées en dure moo sancaat kajoor mi baayam jóge woon dem jihaad moo sanc canaba gosaas ci biir siin ñëw wuro maadiyu tabax fa jumaa ji xam nga kon kooku booy xool taxawaay bu am sëkk la def pour développer madiyankisme moo tax mën nañ ko considérer comme un poste fondateur maanaam ku mel ni sos dafa sos te sosul ndax action bu rafet ci développer ak ci yaatal te loolu booy xool mooy taxawaayu taw yépp fi ñuy tëjee waxtaan wi nag ci di conclusion bi ñuy tàmbali dafa amoon laaj yu ñu indi dañ ni woon madiankisme lan mooy nature am maanaam lan moo koy màndargaal mooy lan lan mooy nature am defe naa ni fi ñu jaar mën nañoo tontu ni madiankisme syncrétisme la maanaam tijaaniya tarixa tijaan bu dajee culture naar la loolu mooy madiankism te loolu nag ñu tibbe ji ko ci doxaliinu Nasruddin tudde tibbe ca lu bari ñaareelu interrogation bi mooy lan mooy spécificité maanaam lan mooy màndargaal madiankisme wone nañ ni résistance la boo xam ni li ko tax a jóg du contrôle politique ak territorial waaye defar jikkoy nit ñi un prosélytisme atypique dans le lequel la conversion des âmes à plus d'importance que le contrôle politique et territorial ñaareelu interrogation wala ñetteelu interrogation bi dañ ne woon ñan ñooy personnage clé yi nga xam ni ñoo incarné ñoo jëmmal madiankisme madiankisme booy xool œuvre collective la ndax njabootuk maadi yu ñépp ñoo ànd jëmmal ko ba faf tëdd ñoom ñëpp ci champ de yi kenn mënula la loolu ci jëmmal œuvre collective la waaye nag man nga cee seppi benn benn yoo xam ne seen tour dafa dem ba jaxasoog madiankisme Mamadou ba évidemment fondateur bi Cheikhou Amadou résistant bu mag ba Ibra Penda Bouyo Bara Madi ñi nga xam ni ñoo doonoon les arcanes militaires ñu téye woon armée bi Amari Ndak imaami jihaad ji Momar Talla le fondateur wax nañ ko léegi ak ñeneen beneen interrogation bi mooy jaar-jaar yi nga xam ni moo tasaare madiankisme ci réew mi bi ñu nekkee ci jamonoy xeex jaar-jaar yi mooy téye jolof téye kajoor kii di euh, gox bi gën a yaatu ci réew mi di jolof kii di gox bi ëpp doole ci réew mi di kajoor mboole ñaari téye samp fa diine ba ënni Charles def conclusion bu rëy boobu ni reeni diine moom maadi yu moo ko samp jolof ku ca def dol la dolli waaye moom moo ko fa sañ euh, après Samba Sadio nag nga xam ni phase militaire bi jàll na étape bi mooy étape implantation politique au Bawol am na historien yoo xam ni ku mel ni Mamadou Diouf historien bu rëy la ak euh, Euh, même Ernest Charles moomu historien bu rëy la mais am na conclusion yu ñu def yoo xam ne euh, dama gis ni dañoo juum ndax dañu ni euh, le 11 février la bataille de Samba Sadio a consacré la fin du mouvement Madianke Ernest Charles ni après Samba Sadio rien n'est de ce mouvement xam nga loolu erreur la li wér mooy di Samba Sadio jàllee madiankisme dafa développé dafa yaatu ci réew mi defaroon naa carte boo xam ne day wone fépp fu madiankism am ay reen li ko dale Wuro Madiyu ba Kawlax Ndar ba Sinthiou Bara dakaar ba Tambacounda foofi dem rekk fekk fa waa kër Madiyu kon madiankisme pôle tijaan la boo xam ne tey ñépp a ko xam te ñépp a ko respecté waaye reconnaissance boobu ak respect bi nag dafa am lu ko waral ñun ñi bokk ci madiankisme ñu war koo xam xàmmee ko bi ci jëkk mooy la puissance de sa capacité intégrative madiankisme dafa bari loo xam ne da koo jëli dugal ci biiram gis nga bari na ñoo xam ni ci contexte bu particulier seeni maam dañoo jàmmaarloo woon ak cheikhu te tey kenn ëpp leen taxawaay ci madiankisme loolu mooy capacité intégrative marqueur la ci madiankisme am na beneen marqueur ci euh, madiankisme mooy relation yu dëgër yi nga xam ni da ko séq ak mboolem këru diine yi te li ko waral mooy euh, madiankisme këru diine boo fa dugg waxuma la diine ji mais dañoo séq mbokk deret madiankisme këru diine yépp la bokkal ak mbokk moo tax euh, seeni relation demee noonu bi ci mujj marqueur bi ci mujj mooy attachement viscéral bi nga xam ni madiankisme da ko def ci ay priorité maanaam madiankisme dafa xàmmee dafa xàmmee li nga xam ni moo tiim ak li des ginnaaw te loolu boo ko bëggee dégg da ngay dellu ca leetre Baraamaadi yu ba mu bindoon bakkantam buur ba Jolof ku bëgg a tedd ëllëg sacrifiel tey bàyyi xel ëllëg boo sacrifier ëllëg bàyyi xel dinga ñàkk euh, bàyyi tey di nga ñàkk tey dinga ñàkk ëllëg philosophie boobu nga xam ni leetre bi daf koo tënk moo tax ñi bokk ci madiankisme xàmmee poño xiit ak or poño xiit mooy àddina tekkiwul ni dangay yaafus waaye boo bëggee téye àdduna prépareel àllaaxira ordre de priorité boobu maadiyankisme ko xàmmee la Baye Ousseynou Xaar dafa daan wax ni te lii la daan tënk loo fi téye defe ni yaa ko moom boo fi nee jàng mu génn say loxo kër yi oto yi ba ci njaboot gi dañuy génn say loxo ñeneen yilif leen lenn ngay téye dootoo ko ñàkk mooy yàlla ordre de priorité boobu nag moom la mu xàmme moom la leen ñëpp xame moom la leen ñëpp respecté moo tax suñu mission ñun mooy pérenniser loolu maanaam téye ko ba di ko jébbal suñu njaboot li koy téye ba di ko jébbal njaboot gi nag bokk na ci activité bu mel ni bu tey bii ngeen jël euh, kilifa gu amoon taxawaay ci diine ji def ko parrain feeñal ay jikkoom ba ñëpp xemmem doxin woowu bokk na ci liy pérenniser bokk na ci liy transmettre loolu daal ci tënk moo doonoon li ñu bëggoon a waxtaane wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li ma ci bëgg a wax rekk mooy benn aspect rek laa bëggoon wax ci Seydina Limaamul Mahdiyu mooy l'aspect spirituel aspect spirituel ki nga xam ne ne daanaka tarixa tijaan bu doggee ci Afrique noire ci këram la njëkk a dugg ndax Abdul Karim Diallo bu ma jëlee tariqa bi ci cheikh Mawlud Fall cheikh Mawlud Fall jëlee ko ci cheikh Mouhamadul Haafaz cheikh Mouhamadul Haafaz jël ko ci Seydina cheikh Ahmadou Tijani radiallahu taala anhu tariqa bi bu ma ñëwee en Afrique au sud du Sahara biir kër Seydina Limaamul Mahdiw la la ñëw dafa ne rakkam cheikh Umar Foutiou radiallahu taala anhu dafa am lu ma yàlla woon suba nga xëy si ñu ñëw ci tefes gi dinañu jot leer bu jóge ci sunu boroom ñu ñëw ci tefes gi Abdoul Karim jàlloo egsi yëkkati tariixa bi jox leen ñoom Cheikh Oumar Foutiyou ak Maam Madiw ci biir kër Maam Madiw Maam Madiw mu ne leen mënuma leen ijaazaal dem leen sama sëriñ Cheikh Mawlud Fall mu ijaazaal leen ñu déplacé wu dem foofu ci dawaali Tumbrahim Cheikh Mawlud Fall ne Cheikh Oumar Foutiyou man duma sa sëriñ sa sëriñ mu ngi tudd Mouhamadul Ghali Medinatul Munawwara la nekk foofu ngay jëlee sa ijaza waaye kii di Amadou Hamme Ba li ma jëlee ci Seydina Cheikh mooy boroom mu yëkkati ijaza bi teg ko ci loxo Seydina Limaamul Mahdiw mu ñëw pendant vingt ans moom rek moo fi tasaare tarixa tijaan ci réew mi 1819 la ko commencé pendant vingt ans Cheikh Omar Foutiyou ne ma nga mo nga mo nga mo nga Arabie bi mu dellu see fii Cheikh Oumar vingt ans après la ñëw fekk ci xaritam wëllëram soppem Seydina Limaamul Mahdiw te bu muy dem dafa jël magam bu mu bokkal ndey ak baay Kumba Eliman Taal may ko Seydina Limaamul Mahdiw mu am ci taawam bu góor ñu ko wax Mouhamadou Mahdiw Ba Seydina Limaamul Mahdiw nag neexu la xam yàllaa ko nëbb dafa am ay alxuraan bu yàlla di wax ne yaati min baadi ismuhu Ahmad foofu sirru yu rëy fa nekk li tax ma wax loolu ndax yonent bi la doon wax moom Isa eh, alayhi salaam dina ñëw te mooy mottali li seen seen seen yonent yonent yàlla Muhammad Ahmad la tudd bu mu ñëwee moom moo doon defar jaam defar àddina bi mu jag bu mu demee ba jëmmi jamono yàlla indi imaamul awliya di Seydina Cheikh Ahmadou Tijani radiyallahu taala anhu Ahmad la tudd ne ana imaamul awliya man may xaatimul awliyaay tëj naa bunt bi maa diw ak Seydina Cheikh fekkante nañ ci jamono 33 ans 1815 la Seydina Cheikh génn àddina maa di judd 1782 muy 33 ans mu jël tarixa bi Seydina Cheikh làqu Seydina Limaamul Mahdi Ahmadou Hamel la tudd jaati min baadi ismu Ahmad Seydina Limaamul Mahdi daf di koo xam ne nu bëri duñ ko xam nit yàlla yi rek ñoo koy xam te kenn ñemewu ko feeñal dafa am lu fa nëbbu lu fa nekk ñun xam nañ ko ñi nga xam ne ne kilifa yi nekk ci kër gi xam nañ ko kilifa yi nekk ci kër Madiou xam nañ ko kon ñu jàpp ci ak fukki loxo du rek conférence yi mooy tax Madiou ñu xam ko Madiou yàllaa ko nëbb te du feeñ ba yowmal xiyaam la ñu xam nee na yowmal xiyaam di ngeen xam kuy Seydina Limaamul Mahdi koo xam ne doomam Seexu Amadou bu muy génn àddina dañ ko séen asamaan bi ne yonent Isaa di yéege ci asamaan noonu la yéege ci asamaan bi di dem kooku du como kooku di nit la boo xam ne ne macha allah tabarakallah nañ ci tëye ak fukki loxo di ci daw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi jox euh, kàddu gi suñu mag euh, Amadou Diak ñu koy wax Mawlud nekk mag ci kër gi nekk ki ñuy gunge euh, fu xale yi jóg mu taxaw ànd ak ñoom mu ànd doon démb ak suñuy bàyyi ba ci bureau yu njëkk ya bureau premier bureau association des originaires moom mii ci la bokkoon ànd ñoom e holluɗon weltare hannde domin keɓino e ngal ɗo dental alliyonkagal dental julɓe musdal julɓe e kawral julɓe min ñaago allah subahanahu wa mbon fof ɗo ummi yo allah suur ɗum haa hoto e jam on mbaɗi ko on mbaɗi yooɗi fowru noon so fowru so forçama yo ŋuuñ so ŋuuñi welata son mbimin amadou diak yomi haal e oɗo taniraɗo jibinaɗo moƴƴo tedduɗo mbo allah teddini gurdam e mayde so mbiyam haali hunde de ko hunde teddude am kono il faut mi esa haalde hen hay sok seeɗa limamul mahdiw ko dañi ko somi wiya ala dañƴi ɗum wona gandiɗon mbo wona battidiɗon mbo so neɗɗo feldi haalde yo haal haalaɓa cer par ce que kalmi ko hono waɗi tembere waɗi dalilu limawol mahdiwu rahmatullah aleyhi wona eliɗo mbo wona eliɗo mbo feeñje wona hay goto dañaki limawol mahdiwu dañi ɗum alaa wonata mbeɗa jogii heen dalilu ƴeew wuro no fotiri ni kanko jeyaaki suyummo suyummo jeya o ummi suyummo o ari giya koodit baliyaaɓe wonɓe ɗoon seereɓe ngon ɗon fof irliimo nganndi ko jeyaaɗo allah ko waliwi haqqan kaɓɓi keeca yumen haa tiiɗi gonde makka gaddi mbo wurma diw mbo wurma diw kilométre uji kilométre uji funnaange e hinnaare e worgo hol dañi ɗum hol dañi ɗum hol dañi ɗum e waliyaɓe ɓe wona ɗo hoɗi ɗo ko giya jeyno ko leydi giya naaɓe o adda ɗon o rokka o arde e jaatam alpha siré diag e kañum wonno imam ratib giya wonno ceerno giya o wimmin noon leydi om rokkitaaki ɓe mbi pourquoi mbiya leydi ma rokkitaaki ɗum dokka hoore tawa ɗemngal ɗum kay wonata o wi oɗo o jiyaɗal min e makko jannga ha yeeso allah mi eggat mo hodda makko ɗum waɗi mamlewal madiw rokka wuro madiw kilométre e funnaaki kilométre e rewa e worgo fof ha sayboto alpha daña ɗon saybo dañ mamadou mam dañi min mam sayboto alpha haalni kam ko heewili on mahdiw on ko jeyaaɗo allah jettiiɗo allah ɓurɗo ɓurnaade mbo allah moƴƴino nguurdam muɗum haa o dañi ko dañi ɓerɗi makko ko jeyaaɓe allah ɗum ɗon noon haa ngaynen ma woto mbeddima heen assalamu aleykum wa rahmatullah sallllahu aleyhi wa sallam di ziyaare bi bu baax di ñaanal kilifa gi nga xam ni su ma yëkkatee kàddu ci moom laa ko yëkkatee muy Ceerno Jibril Alpha yal na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram yal na yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot tey yàlla dafa ñoo dimbali muy bés bu rëy boo xam ni yàgg nañ ko séentu waaye tey la ko yàlla indil yàlla na sax ñi ngi gërëm bu baax mbooleem ñi nga xam ni ay délégation lañu ñu yu rot si comme niñ ko lime woon ci commencement bi su ma ci jaaraatul rek na nga xam ni commencement bi niñ ko lime woon moo tax jaaraatuma ci waaye ñi ngi gërëm mbooleem ñi nga xam ni ñëw nañ fii te yàlla indi leen fi ak jotaay bii ak déglu si góor bu baax ji nga xam ni ci lañ ñu doon waxtaanal jikkoom ak jëmmam ak ab ab liggéeyam bi nga xamante ni du jeex nit ñi di ko roy ilaa yawmil qiyaamati te mu nekk ay royuwaay yoo xam ni la fait nit ñaa ngi roy ci ñu mel noonu yàlla di defar seeni mbir àddina di ko defar alaaxira yonent bi alayhi salaam yàlla da ko ni ñii duma leen bugal le fait yaa ngi ci seen biir soo fi jógee duma leen bugal la fait que ñi ngi def istixfaar yaa ngi ci seen biir yonent bi bu fekkee ab jullit la jamono ju nekk yonent bi day teew ci wetam moo tax muy buy julli ci yonent bi loola di ko saf ma ni kon jikkoy Seydina Limaamul Mahdi te mooy jikkoy mu jaddit comme ni ko sang bi waxa woon léegi képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel ci jikko yooyu di ko jëfandikoo jamono ju nekk yaa ngi ci wetam kon yal na yàlla yal na yàlla nangul nu ñun ñëpp sëñ Souleymane jërëjëf yal na la yàlla taxaw keroog bi ñu demee. toog ci kanamu sëñ Cheikh Ahmad Tidiane euh, sëñ sëriñ euh, Alxasan Seck wax ko euh, conférence bi wax ko ci yëpp wax ko ki koy def dani kooku dey mën naa waxtaane maadiyu ak ñi mu doon mat nii la ko waxee muy sëñ Souleymane Dia kon yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla dëgëral la yàlla na yàlla sàmm la kii ci sama ginnaaw ci wetu ci sama xaw wetu càmmoñ Chérif Touraat lañ koy wooye Chérif Touraat Haydara di nitu yàlla ku baax euh, moom lii moo ko yëkkati na xam euh, soxna Marème Ndiaye moo ko jox lettre invitation waaye mbokk la xarit la ku xam wuramaadiyu la ku gëm la it ni maadiyu li ko yàlla may ak may la goo xam ne yàllaa ko ko may di gërëm ki ci wetam muy sëñ eh, Mouhamad Seck Mouhamad Seck boo gisee mu tudd ko doomu sëriñ Abdourahim sekk la magam bu gàllankoor amee da koy yebal te tey jii ñun xam ne ni wàcce na ba bari na ay kurung kurung yu fa am waaye macha allahu eh, eh, andi andi andi ñëw na pour pour indi ndimbal yi euh, kàddu kaddu yi ñooñu nga xamante ni ñoom ñoo ko yebal di gërëm it nag sama mbokki bopp yi muy waa séer maa ngi leen di gërëm ci ci ci sama tur waaye ci turu Thierno Jibril ndax waa yi yéen ci boo demee Wuro Madiou bu ñu ñëwagul dañ naan Madieng ko bi ñëwaguñu kon e, yàlla def na ñu bàyyi leen xel ci kër googu bi ñuy waxit waxi animation suñ lemin mii dani ma e, seetal sa mbokk yi suñu mbokki bopp yi nga xamante nii suñu sikkaree ku ko romb di nga xam ni ñii sikkaru su wurama diyu la wala soo ko xamul di nga laaj waaw ñii sikkar ñi ñan lañu bu ko defee dinañ la ko leeral ndax it nag kenn ku nekk boo bëggee sab naaw rafet da ngay naawee say dunq te ñoom ñii ci suñuy donq lañ bokk kon e, ci Ceerno Jibril ci kàddu njabootam ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant taxawaay rafet na li xew ca kër ga itam xam naa ko waaye teewul yéen ñëpp yéen a bàyyi la lépp bàyyi fa sëñ jibi ak ñu néew ñu mu cay àndal ak sëñ isaa euh, yéen ngeen bàyyi loolu lépp ñëw fi ngir sagal nu yal na leen yàlla sagal mbégte daal am na kontaante am na bég nañu kontaan nañu yal na yàlla bég yal na yàlla kontaan Ceerno euh, Jibril xolam sedd na njabootam xolam sedd na ci ñu nekk ci bi yëpp ak njabootam lañu sëñ njabootuk sëñ Touba gi nekk ci biir ak njabootam lañu njabootuk maam Bu gi nekk ci biir ak njabootam lañu njabootuk séer gi nekk ci biir njabootuk Cenaba gi nekk ci biir njabootuk euh, euh, euh, Medina Sarr gi nekk ci biir njabootuk Ngay gi nekk ci biir ñoom ñëpp ak njabootam lañu te gëm na ni it ñooñu ak njabootam lañu ba tax na yàlla na yàlla taxawu leen. mbokk yi dellu jaajëfal leen yéen ñi ànd ak waa Cenaba TV. Euh, ci conférence bi nga xamee ni euh, mu ngi amee woon ci maison de la culture euh, Douta Seck te njabootu waa Wuro Madiou yi doon ko def mu nekk conférence boo xam ni dégg ngeen fi prestation bu am solo bi nga xamee ni moom la fi Souleymane Dia def waxtaan ak ñun ci histoire maam Cheikh Amadou waaye njëkkee ko ci waajuram muy maam Limaamu Madiou Ba. Euh, muy euh, macha allah mu waxtaan si waxtaan yoo xam ni waxtaan yu am am solo la kon équipe bu Thiénaba TV bi nga xamee ni moom moo déplacé woon dem Dakar euh, andil leen mbégte mi Talla Sarr ci boppam la ñu mu nekkoon le man en chef waaye àndoon nañ ak Moussa Ndiame Gueye ci reportage bi fekk fi njabootu Madiyanke bi bi nga xamee ni macha allah ñooy association. Euh, des originaires euh, de Wouramadu fii ci maison de la culture euh, Douta Seck fii ci marché Tilène thème bi ñu doon waxtaane nag les mouvements madianke bi nga xam Souleymane Dia moom moo ko doon def muy maam Ahmadou Amme Ba al Madiou bi nga xamee ni 1782 ba 1862 moo nekkoon ak dundam kon Thiénaba TV noonu lay doxee ànd koog yéen ci lépp loo xam ne rek Thiénaba la ak histoire Thiénaba joxante di daje incha allah yeneen i jataay Euh, ànd ak waa Thiénaba TV jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na yàlla saawaan baawaan ci Thiénaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu TV disposition pour la couverture de vos pour la couverture médiatique des grands événements Thiénaba TV avec vous avant pendant et après mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga man koy am